kay di ko sanguloo ay xaj bu ñëwee fii ah dinañ wax leneen waaye gàcce ngaalaama bu bu tëdd jotee mu tëdd bu ah, entraîné jotee mu entraîné ji bu faju jotee mu ji kon bamba tey ne koo France de waaye dinaa la wayaan wayaanu tubaab bamba eh mbuus yi jël leen ko for leen yëpp fii gazon la mbuus mi bu ci àndee te mbër mi dafa ñeme ay kii ay ay démonstration ak yooyu te mbuus mi daal di tax. Bamba. ah gàcce nga alaama tubaab nag laay génne wayaan bu tuuti kil kil dak rendem ka kil kil kat kat rakil gees gees dige yow ma pare duma la seet lan moo xew mbay bamba bamba li ci mbooloo géwél la jiin nag loo jënde jar na ko donne ma de l'argent somme tuuti les griots ah les maisons griots adama moom ana ko de adama gom dama ko de ah, ah. moom tey ay uul lii waa ñu yàlla la bamba ah eh. journaliste yaa ngay bëtt barrière ba di dugg si de ma kalaame leen balaa dara xew dama leen di jaxase génne leen leen journaliste yi sot na naa mën ngaa filmer rek nga dem ba ci biir télé ba yow ubbi bouton yi te jiw si dugg ba courant ba fekk la fa. Bamba. Bamba nekkoo pare di taxawaalu. Ablaye Ndiaye doomu yaay Bamba. yaa Ablaye xam nga ni boo dee boo tukki yóbbu ma dama koy gëm xam nga ni tubaab bu xees am na waaye tubaab bu ñuul la ñu am ñun ku bëgg Balla Gaye dañ lay bëgg oh! Bamba nee na Bamba nee naa jël junni bi ba ci kanam mu door a waxtaan ak man ci euro yi ay ban may door a may euro Sidi Diop ak Bamba nax ma ko lay la la naa ma lii la ay man nii. naa seet xorom si ngeen ma xëpp neex na torop waaw Babacar yow dijee tegaleen ma sama siiri jooju mu naa ma naa ko tegal Jaliba Koyaat yow xaaral ba nañu dem Gàmbi dafay pon presse xaaral ba beneen borom promoteur bi nekk Gambie te mu tuuti te sob rek doomi Lamine Sambaay ay waay kii kan la yow eh taxawal eh lii dama lay neexal kaay ma neexal la kaay mais lii neex na de wuy ma xaaral pare ñu gisee mais lonk loolu lonk si bu ñu invité Aliou Bari Fadi. eh waay. eh waay des na lii. eh waay. yàlla na yàlla lay baal. woy bi foofu rek la amee sens la amee si si ay géwal lañu li nga doon boo ko bañee daa fekk nga gën cee ñaaw ndey di géwal baay di géwal jabar di géwal ah ah buñ bu buñ waxul dañoo war a rey ah Yirim sama lawbe bi sécurité bàcc ma sàmba sama xarit boroom conteneur yi borom port borom stade Amadou Bari mbokkum yaayum kan Omar Sakho yàlla na jàmm yàgg mais Sidi Diop lu mooy neex na léegi nag comme ke suur naa Kéba suur si. nan ma war a li caat sekk ba indil ma ko fii. Ah! She took a shot. Kiss, kiss, kiss, kiss. jaww ma yow ah waa lii kontaan naa ci de léegi nag mbay wara li ma sama waa ji nag sekk saala ma demba yoro ah doomi kii dowee ji warul ma ko waay wala mooy ma jaaga yal na jàmm yàgg waaye bu leen fàtte ni ci mel ni Andaw nga ca yoon wa Pape Mama Fall nga ca yoon wa waaye bu leen fàtte ni Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye ña yoon wa waaye nag bu leen juum baarakay kilin awal ma nga ca yoon wa na ngeen fàttaliku ni Ahmed Aïdara mooy monsieur le maire à ville Guédiawaye ma nga ca yoon wa ak délégation bu leen fàtte ni tamit nag attention de ki nga xam ne ma nga ca yoon wa nag moom am na koo xam ne ko lim dama naan muut ba mu yegg boppam ancien mbër la nekkoon fii ba mu yàgg mu daal di tukki yàlla dimbali ko mu am ay mu ne ma Mass Boogaa ma ne ko naam mu ne ma Balla Gaye rek laa bëgg li ma nekkoon ci làmb ji nekk école ba doon bëree di telli telli géejaway di yëngu Balla Gaye rek laa bëgg ma ne ko ak ah, sag du sàggiku na ñëw ndax Balla Gaye de mooy mbokkum ndeyam la dageer waaye nag lamin Samba bu mag bu yegsee lamin Samba bu ndaw yegsi na sama xarit sama doom ndey ah borom kooraay Mali <laughs> koraay mari ang laalo Lamine Samba boo feree rek nga ñëw wii ma Adama Ngom mais yéen mais Adama Ngom fan la ne xale géwél yi boo leen di tëgguloo yii da ngay wër ba tas Adama boo demee na ngay wër gone ya de gone yi dey ah Ablaye Ndiaye les grands basketteurs tous les temps xale bi yëngal jamono club yu baax yi yaa ko yor te xale yi géejawaay ban xam lan mooy basket waaye tamit message bi dina jàllaat de terrain basket bii dañ koy daaneel tabaxal leen beneen terrain basket man xam nga damaa sob ma teel leen a jox programme stade bi dinañ am trois tribune man xam nga damaa sob man damaa sob damay wër di laaj rek damaa sob waaw na ngeen yóbbaale loolu incha allahu rabbi suñ président bi tamit jàmbaar la de Macky Sall mii hmm. billaahi wallaahi jàmbaar la seen daf daf loo duñ gaaw a amaat bu ni mel de ñëpp nag ay jàmbaar lañu nag ñun ñun opposition bi ñëpp xaw ma opposant xaw ma ay jàmbaar lañu mais président bi jàmbaar la ne mu ngi tabax di dem rek di defar ay stade coupe de Afrique di jël coupe ñuy dem di séy ak coupe de monde ak tubaab yi bu yeboo nag après keneen ku gañewaat réew mi tamit boo defee su ma ko fekkee jàmm rek ne la jàmm baax na yal na ko yàlla defal jàmm. mbay foo toll ci Thiat Seck. foo maa ngi leen di nuyu mbokku internet yi di leen ziar tey di teewlu ci li nga xam ne mooy open press Balla Gaye nee naa leen démb fi gis ngeen ñu ci bu Boy Niang waaye tey daa mel ni waa kër Balla Gaye dañoo pare de def ay tiset yu blanc weex. waaw mais ginnaaw bu ñu sant yàlla jërëjëf di gërëm suñu ñaari waajur di sant bu baax a baax a baax waa Géejawaay gis na nu ñu génnee di teeru seen doom Balla Gaye 2 ñun Balla Gaye 2 ñun desetuñu dara ñu ngi ñëw waaw non desetuñu dara. desel eh, desel na leen. barki Serigne Touba Mbacke lii lii benn kii bu muy faxas benn taas taas muy faxas nii rek la ñun Balla Gaye bu mu daanee yëkkati lan lan lan lan teg lépp. des na booy ña booy ko dàqal doon ruwaat. booy ña def dara waroon Serigne Touba. te booy ña pare. barki Serigne Touba Mbacke. fils de dëgg. billaahi wax bi la si am. dama bëgg na li ma wax ni nga génneel ma ko. wax bii la si am barke Serigne Touba Balla Gaye 2 du moroomu benn mbër si di géew bu baaxee. yow booy ku mu takk booy ñaa taxaw di la xaar nga ñëw mu jàllale la takk la daan. billaay walaay Balla Gaye booy euh, ñaa du def dara du def dara lii si laamu ji. wax ka sa laam si laamu ji barke yonent bi. daa mel ni daa mel ni booy Balla Gaye ci bu baax. waaw loolu moom dama ko si sante sante naa ko lamb ji laa wax lamb jooju da koo xawoon na néewal kii nii. waaw waaw no waaw noonu la noonu la mën a demee sax faaw sax mu demee noonu ndax booy Niang wax dëgg yàlla mbër la mais damay la si diggi géew bi boo bi ne prip lu waay doon jaay tey mu lambu Boy Niang def dara bu soobe yàlla incha allah bu soobee yàlla. bala ngay mooy def lépp man maa la wax lii. Boy Niang bu bu fecc ba def nii taxaw ga man sëtu Seer Caam bi maa la wax loolu. Ah. waaw da daan jël bu rëy. incha acca nañ leen dem ñu xoolaat sunu bon naataango la ñuy dajal foofu noonu fas yéene waxtaan ak moom ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang waaye doomu dégol ba ndeysaan ak ki nga xam ne mooy doomu Double Less ba ñoom ñaaray bëre nee naa leen làmb la ma daw ma bett sama benn naataango rek nuyu ko nuyu naa siyaar na fay nañ la fay nañ la ñu ngi sant bu baax a baax naka mu ñu ngi sant bu nu dundee événement ah. ngeen ko dund. waaw ah, événement bi comme ni ñu doon dundee événement yu jaar rek. bu bii du yomb de. non yéen yéen a jàpp ne du yomb mais ñun xam nañ. booy ñaa entraîné ba ne ñaar. waaye booy ñaa mooy kan. doomu dégol. man dégol dégol fu ko nit ñi xam fu mu daj. kan moo daan dégol. dégol fu mu daj. dégol dégol mi ci laam. boo duggee CNG rek ba gis fotoom. booy du foofu de. fa la toj. foofu de. damay laaj rek fa la toj. mais moo fi mu tojul foofu la toj ñëw jàpp Balla Gaye jàpp Balla Gaye man ma ne bu waxee waaw mais wax ji lañ ko bàyyil rek li ko wax wax ji lañ ko bàyyil mais làmb ji moom ñoo ko teel suñu bopp. fan ngeen ko jàpp. wax ji dañ ko wax ji moom na jël wax ji ñun ñu. yéen dafa mel ni da ngeen a ko. ñun ñoo yëngal supporter yëngal ci kaw rek Balla yëngal suuf comme ni ñu ko doon def. comme dab Boy Niang nanguwul lool na ma ami Kole mu ne ma roi mu ne ma daan Boy Niang daan Balla Gaye moo ma dàqal doon. waaw daan Balla Gaye xam nga wax ko ci gémmiñ yomb na waaw mais Balla Gaye champion la Balla Gaye ndaanaan la. nee na waaw mais ba bis ba rek bu jour ba ah, na fee ba ko Sénégalais mere. na taxaw mere na taxaw dëggal boppam. Balla Gaye. booy ñaa booy ñaa day taxaw xaar Balla Gaye day attaqué te booy ñaa nee na bu attaqué dootu ko. booy ñaa ñun ay attaquant lañ. nee na Balla Gaye bu attaqué tey lay gëj. fu mu nekk nañ ko fek moom wax ji moom dañ ko bàyyal mais lamb ji jour boobu noonu fu mu nekk dañ ko fekk. mu nekk bu balaa du jéggi saako yi dina taxaw na arrière ba ci saako yi. gis ngeen Balla xam li Boy Niang li mu xam. xooluñu ñun sunu mbër lañ xam. gis nga Balla Gaye de waaye Boy Niang. non Balla Gaye sawaay mooy lamb mooy lamb. Père Bourkhane nee na ma lamb ji sama lamb. waaye Père Bourkhane xam nga rek xoloma sedd rek waaw ah, xoloma sedd rek. jërëjëf mo ngi noonu ah ñu xoolaat fii keneen xool kan moo fi nekk ci gaa yi ñu dawaat jaar fi ah a ko may ma ne boo ñaa démb boo ñaa démb ay mbubu la tegale may ay mbubu la tegale day naxaate boo ñaa dara nekk ci moom démb ay mbubu la tegale te yàlla xam na ne bu dimanche bu dimanche bu waaw bu dimanche. ñooy ñooy ñooy bu dimanche ñooy neexal ñooy fese stade bi ñooy bëri. bu ñëwee ñu duma ko daan ko. wallaay bu ñëwee ñu duma ko daan ko. boo ñëwee damaa bëgg ngeen xam ne fàtte xaju fi. moom mooy kii Balla Gaye 2 li mu def ci làmb ji. Balla Gaye 2 li mu def ci làmb ji. fàtte xaju fi. lu mu def lu booy. ah booy ñaan daa dugg daa dugg géejewaay daanaka daan. waaw loolu dëgg la. loolu tax nag. daan rakku Balla Gaye. loolu tax Balla Gaye di ko freiné 2005 la dugg ci làmb 2005 daan ku ne. daan ku ne. daan ku ne. waaw yooyu loolu yëpp. d'accord ñëw ñëw Lac de Guiers na ko yemal fii mu ne du yem foofu mu sob soblu ne Balla Gaye laa soxla. wallaay la xasim bu yëgoon li ma yég booy ñaa bu yëgoon li ma yëg. loo yëg ñaa bu yëgoon non non loolu asifur lay doon bàyyil ba dimanche. nañ ko ci tànk foofu yéen lu nar dañ billaay danañ ko weer digg bëccëgu ndar kàmm booy ñaa danañ ko wan nañ ko dañ ko wan nan lan lan mooy lamb dañ ko wan ne ko xamut lamb booy ñaa ak mën a bi booy ñaa ko mu takk ko mu masal ku mu masal takk boo demul tam eh, takk ñamuy takk balla kenn du ko takk gis nga Balla Gaye 2 doomu du walees bi gis nga ko gis naa bu baax Balla Gaye mu disise rek ak lu mu bëggal boppam foo teg ne Balla ndax combat bi da koo bëggal boppam mais boo ñaaw ko gën a bëgg combat bi Balla da ko bëggal boppam. Boy Niang nee na daan Balla Gaye ko gënal doon roi des dama lay wax ñaar Balla Gaye trois séances par jour nelawatul am lu yem ni tudd Balla ku ne xam ko ci showbiz bi ñëpp bëgg ko mu bëgg téléphone bëgg internet nit ñi da journaliste yëpp da wut si ko mu ne du ma wax ak yéen ndax lan combat bi kon jox na cër booy ñaa respecté na ko. xam na li ko làmb ji jaral. mais Boy Niang eh Boy Niang moo indiwaat Balla Gaye ci làmb. Boy Niang waaw parce que moo ko dugal bu ma laal mu na ko dama lay laal far force dama lay laal far dugal na Balla Gaye ci làmb ji waaye nag dugal na musiba am ci làmb ji wallaay dugal na musiba mu ci làmb ji bu dimanche. bu dimanche Balla Boy Niang nee na ma ami koole damay taxaw xaar Balla Gaye attaqué ma te bu ko attaqué doo ko def. déet moom bu mu génn ca la ko laa lay daan. si une minute boobu la koy daan. Balla na ko yokkal naa la ci beneen muy deux minutes deux minutes yooyu su ñëwut Balla da koy fekk fu mu ne jëli ko far force da koy. dëgg Balla ne dañuy xeex minute bëre une minute jëlu doo da koy duma da koy daan man maa la wax nii da koy duma da koy daan. Balla da koy duma da koy mën naa duma mën naa duma booy. Balla duma na kurut booy ñaa ñun xam nañ booy ñaa booy ñaa tapet la. su ma amutoon lenn lu may lu may lu may rus wala rek wala ma ñàkk ko jox cër damal damay weer booy ñaa tey dama koy weer. ma weer booy wallaay kon ma weer ko. foo ko teg. loolu asifur la loolu asifur la. la. waaw fay naa la. di la ziar. ñu ngi delloo ziar wér wér. tey da ngeen a kontaan. waaw mbégte rek mbégte lool tax. am mel a daan boo ñaata daan na ko. waaw daan nañ ko ba noppi ndax ndax suñu mbër moo njëkk jox confiance quoi barke Serigne Touba ndax tey jii xoolal mbooloo mi taxaw fii nii yëpp Omar boobu léegi ñëwagul ñu ngi ñu ngi koy xaar depuis depuis deux heures ba léegi gars ñu ngi fees deel. daa waxoon quatre heures lay ñëw cinq heures mu waaw ñu toll nii heures jot na kon xam naa ne mu ngi ni agsi na ba pare waaw lan ngeen fas yéene def. waaw fas yéene def Boy Niang lenn kase la na yaru rek te dëggal boppam ñu wan ko ñoo la mën ci làmb ñoo la jiitu ci làmb duma ko daan ko ci. yaru ci yaru ci ban côté ñëw rek daal tëdd. non dafa war a yaru maanaam ñëw taxaw dëgël boppam. Boy Niang kay de dëggal. non Boy Niang du nitu kaddu du nitu kaddu de ñemewul li muy wax lu leer laa la wax ñemewul li muy wax te bu bés baa dina xam ne le premier basi na góor koy bay te Omar Sakho liggéey na loo xamante ni du pour booy ñaa pour Eumeu Sène la. yow gis nga Boy Niang ñàpp la def. Boy Niang du dërëm day nappe rek. entraîné ba tax. Boy Niang ñoo ko gën a liggéey. foo ko teg. Boy Niang xanaa gisoo Balla Gaye kon yow. gis naa Balla Gaye ba gisoo ko sa bopp jaxal. gis nga Boy Niang démb ni Boy Niang du dërëm état bu ci làmb. Boy ñoo ko jiitu ci ñoo ko ëpp expérience ñoo ko dàq bëre. gën a féete xale. gën a féete magante wuñ morom Sa la rek magantewuñ. nee na Sa Thiès moo ko mag. day sóob rek yëpp ay naxe rek mais le premier daal lépp dina leer ci kàttanu suñu borom ñu ngi ñaan daal suñu borom dafal ñu ci ndox mu sedd ak sutura Balla Gaye 2 jàpp Boy Niang duma ko daan ko nee na démb xale yàlla xale la waaw lool lool loolu loolu àggaguñ ci waaw loolu àggaguñ ci ñu ngi lay jaajëf ñu baax a baax ayca mu ngi noonu anam ayca mu ngi noonu Lirou Diane noonu nañ dem xool ndax dina nangoo jël ba liiru nuyu naa la. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma liiru jaan nee nañ ko may tuuti kii mooy monument géejawaay nee naa la xale géejawaay heure bu ñuy bëre da leen di taxaw taxawaay bu rafet moom liiru jaan sawar loolu ci xale géejawaay liiru nuyu naa maa ngi lay fay di la ziar di la bégee bu baax a baax a baax a baax waaw. tey da ngeen a confiant. waaw tubaarkàlla macha allah dañoo xam ki yor. xam at bis bi mu ko jaral at ñun tam lim ñu jaral loolu moo tax ñun yooyu ñun ñun bis mënu ñoo jaaxal bis mënu ñoo dépassé am nañ bis bu ne am nañ bis bu ne moo tax fan si jarul xuloo jarul xeex li ñu def daal li nu war lii ñu def nii tey ci ëppande bi ñëpp génn te des na nit ñaa ngi ñëw su dimanche ak jàmm ñu sañse ba rafet teel a dem stade dagg bie supporter seen mbër ñu yëngal ci kaw mu yëngal ci suuf ñun géejawaay leen dëkk géejawaay ragal dëkku fii. boo ñaa démb nee na Balla Gaye bi yoon du yëngal. lanam nee na ma démb Balla Gaye bi yoon du yëngal. waaw yàlla baax na. yàlla baax na moom boo yëngal. te nee na moo leen indiwaat ci làmb. waa moo. nee na moo leen indiwaat ci làmb. nu ñu indiwaatee. nee na làmb ji fonkoo leen ko woon moo tax ngeen moo tax ngeen. waaw jërëjëf ñun dul xeeb bis ñun dul xeeb bis te mën nañ bis gis nga xale yu mel nii ñoo tax Balla Gaye du yokk jom. genre yi nga xam dañoo gëm fi nu dëkk dañoo bëgg géejawaay genre yu mel nii moo tax Balla Gaye gën a xoolal tey ni nu taxawee ñoom ñëpp ñu génn xale yëpp génn di supporter ñu booy ay noobul lanu man li moo tax xale yi neex ma géejawaay lanu gëm su seet de football du nu am jàmm ñooñu ci guddeeg bëccëg su daan saa jigéen daan wuy ma booy ñaa nee moo ko gën a entraîné démb ah, xoolal wuy ma ñun loolu lépp su bis baa na ko wane lim liggéey su bis baa na ko lu mu fa <laughs> nee may na ma ci ne nee na seytaane na drapeau bi nee na drapeau bi acca nañ leen dem demul kan la ñuy xoolaat dama ay galañam demul Europe bënn ay sabaram jaar nii ñu xool KP mu ngay publicité li nga xam ne jaaraama borom drapeau bi yow eh kaay may ma tuuti déem yow déem da ngaa wax lu yaa ne ma da ma ne ma dama xaar ma laaj la lu tax booy ñaa ñëwul ci ci li nga xam ne mooy fees. borom kagul bi la ragal. borom kagul. waaw moom la ragal booy ñaa daa indi kagul. kagul benn mbër nga fi xamee ci Sénégal muy Balla Gaye 2 roy du roy du ndóog pi roy. dund na piir de. daa indi kagul kanji kagul. waaw kanji kagulu kanju <laughs> xam nga kanji waree fam ne def diggante ak Boy Niang ku ku maam ku am ngor la mais Boy Niang ki muy bëreel est-ce kan lay bëreel est-ce que xam na Balla Gaye Boy Niang fa wéet ak ay mbokkam ci néeg mu laaj kan mooy Balla Gaye ñu wax ko kan mooy Balla Gaye xam lu problème bi ku war ñee ba wàccee ko loo war warees na la Balla Gaye war na lu ne ci làmb contre moom ak Yékini rek dana dana takkusaan dama bëgg waxtaan bi gàtt moo tax ma tibbee foofu Balla Gaye contre mag ma Gueye doon na takkusaan maa daan Modou Lo ñaari yoon doon na takkusaan ba fi booy nekkee naan Yékini sa conseil laa bëgg sama sama royukaay nga mu ne père père Max mu ne ko waaw mu ne ko bala ma joxe Yékini ma daan ko ba mu koy wax gëm-gëmam la woon mais fii Balla Gaye toll fii la Boy Niang toll tey le premier janvier Boy Niang war na wane wane wane boppam si examen yi mu def échoué. oo ñaan daa ñëwaat beneen anim ah, xaw ma kuy kot sam ak kan moo yor booy liñ ko dugal loolu loolu loolu daanul Balla Gaye daa souplesse ci combat bi bugguma loolu ci moom tool waaw Balla Gaye mbër mi bëre moom boo diisut mënoo ko waaw Boy Niang nii la ñëwee woon ci digganteem ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine. mo lan lan la fa jëlee. lan la fa jëlee waaye nee na blessure taxoon bëre wu. non non na bàyyi loolu ay ay parce que li intention bi mu ñëw Boy Niang ñëpp xam nañu dafa ñëw décision pour xeex ak Balla Gaye bi parce que Balla Gaye mënoo bëri lu ko joomal bëree bëri la bëri na lu ne. Eh, Boy Niang ah, daa dàq bëri Boy Niang. laa ilaha illallah. ndax Balla Gaye daa dàq bëre Boy Niang. laaj Balla Gaye dàq bëre Boy Niang. bu amoon maanaam xalifa général Balla Gaye xalifa général képp ku lu kuy mbër la ci bëre Balla Gaye xam naa dañu ma ab daa far faruma nag mais qualité Balla Gaye ci ku di mën a bëre Balla Gaye ci ndaanaan gi mu doon Balla Gaye kuy takk njëmb ci làmb mool dàq bëre daane na mbër du ne ci làmb mais Boy Niang ndaanaan la bañaluma ko nangul naa ko xamul ndax moo fi daan jël bu mbër musul daan mbër. li mu nar a bëri ci jour boobu dafa bëri que dëggal moo ngeemoon Boy Niang mu mag mu bëreeg Balla Gaye numéro 1 mu daal koy daan dëggal moo ngeemoon Boy Niang numéro mu doon yegg saa mu daal daan daan saa kees moo ngeemoon Boy mu doon yegg les 2 mu daan les 2 mais dëggal moo ngeemoon Boy Niang numéro mu doon yegg Balla Gaye numéro 2 ay waay lambu jooju ay bu mu ragal kagul bi ragal kagul bi. kagul du ñëw ci lambu cey Bira Sène lu mu laaj bal da koy def fa laa yem jooju fa yemal foofu ba sa sa baaraam aca bo ñu waxuwaat dawaat ànd sama gaay rek ma ñëw jël ki nga xam ne mooy sama naataango bii nga xam ne mooy Babacar borom les arènes Babacar nuyu naa la siyaar naa. booy naa moom pare na la tamit pare na maa ngi lay fay. di la siyaar tey. maa ngi lay fay nu ma ko gisee bon man macha allah parce que waa Guèye waay génn nañ comme ni waa Pikine génne woon parce que loolu mooy làmb ku nekk rek sa gox da lay gunge yaa ngi dégg bon pousser le vers la victoire mais dama ne Babacar damaa gis ne Boy Niang daa indiwaat Balla Gaye ci làmb bi première fois bi bi ngeen njëkkee daje fi nga xam ne mooy Sorano dafa mel ni keroog la Balla Gaye ñëwaat ci waaw loolu am na ñu koy waxee noonu mais pour man Balla ma sa jóg ci làmb ji ah. ay nag nit ñi seen am na ñoo xam ne seen gis gis boobu la ñu amee mais pour man Balla mosul jóg ci làmb ji parce que Balla jël na Boy Niang te koy jël xam na ne ki mu jël maa ko jiitu ci làmb yaa ngi dégg bëri naa ay at mu doog a ñëw dugg si ci làmb kon sama rakk la ci làmb sama rakk la ci at kon defe naa ne dama naan xëy na kay am looy nëbb ak loo mu feeñ moo fii nekk waaye kanta dugal ci làmb ji ak bañ cee dugal moom bon dama naan Balla moom pour man ba mu jël avance am la dugg ci làmb ji loolu laa gis ma mais su ma gisee booy Niang dafa mel ni rapidité la la indi ndax souplesse la la indi ñëw mel ni ko xaw a wàññi est-ce que loolu arrangé. waa noo li ko arrangé xam nga xam nga tey bon ça dépend ci moom ak staffam xam nga ñoom staff bi ñoom ñoo yore seen at euh, lutteur ñoom ñoo xam si ban condition de euh, ban condition physique lañ koy préparé maanaam lañ koy préparé maanaam bu ñëwee lan la war a am ndax dafa war a am tuuti masse wala dañu dañu war a wàññi poids bi. pour moom rapidité ak vivacité loolu yëpp defe naa ne bu boo ko gisee rek ça veut dire que bi ñoom xëy na ñoo ca wax ba déggoo ca xëy na jàpp nañ ne adversaire bi ñu bëreel pour pour ñoom il faut ñu gaaw explosif pour bu def liñ bëgg a def jotee ñu def ko yaakaar naa xëy na bu fekkente ne loolu am na moo ci xëy na. Babacar tey gisaguñu ki nga xam ne mooy Balla Gaye waaye barki démb gis nga ko état bi mu toll bi mu indi moom tamit tey boo doon conseil Balla Gaye buy bëri lan lay bëri. non Balla Balla xam nga Balla moom boo bëggee dëgg-dëgg ami ami Collé mënu ko conseil si làmb bu dee dëgg rek la yàlla bëgg parce que Balla li mu def si làmb jafe na ci ay moromam mbër bu ko def. tey li mu war a bëri mooy li ko estafam sant ak moom li ko xelam may ndax xam nga dama doon dégg coach bi ko yore tàggat ko bàyyi Balla yàlla na ko yàlla jéggal moo mu ne Balla Gaye kenn du ko conseil buy dem ci biir géew te kooku moo ko doon tàggat moo ko feeñal kon defe naa mbër mu mel noonu nag. ka ko yoroon tàggat ko nekkoon mbër bëre ba bàyyi bëre tàggat ko ba Balla Gaye doon li mu doon naka moo mën a wax wax boobu kon man Babacar su dee dama naan damay conseil Balla Gaye ci biir bëre mën naa juum quoi. boo doon wax Boy Niang tey lu muy bëre. pareil même Boy parce que Boy Niang bàyyi mbër la woon dëggul ay mbër ko wër moom it daa judd fekk ngeen ci kër gi. xam naa ne Boy Niang day taxaw te Balla Gaye mbër mu attaque. waaw kon kay day neex rek bu keroog am lu ñu wax rek ñu gis combat bu explosif mais quant à conseil leen moom conseil bi man am foofu ci làmb ji pour man li fa mën a am rek mooy ñaax leen rek ñoom ñaari mbër yëpp te defe naa fi mu nekk nii ñoom ñaar ku ci nekk ñaax bi la say supporter ñaax dafa doy li am solo moom li am solo mooy bés ba buñ ca yeggee ñu bëre ko ci jàmm mu jeex si jàmm que gañ parce que Sénégal lañ nag Pikine ak Guédiawaye ak Parcelles ak Bawal ak Njaambur ak Siin ak Saalum ak Casamance ak Fuuta ak lépp benn réew bi la quoi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañ ko teg ci cadre sport ñu def ko si jàmm mu jeex si jàmm que le meilleur tey looy wax si supporters yi tey gis nañ barki démb benn journaliste dem ko ñu ñoom Balla Gaye muy jara ànd ak ab caméramanam ñu dem ñu dóor ko fa dóor yu metti affaire yi. waaw man moom rafet wu ma kuy dóor journaliste du ma ko mën a rafetlu parce que nag. olof ne na genn golo gàtt na mais loolu ci laal morom ñu yëg ko te ñun ñu yore ay micro ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi yaa ngi dégg xaw ma nag lu xew ba ñu dóor ko ak lu xew bu fekkee ne daa dem pour wut ay xibaar kese ya waaw xam nga micro trottoir moom yaakaar naa ne ñoo ko dóor pour man Balla Gaye santu leen loolu ndax Balla Gaye moom du ne kenn dóoral ko yor micro parce que moom du ko doxale dèjà Balla Gaye bokk na ci mbër ma jàpp ne du sax du taw sax loolu moom dañ ko koy seedeel kon xëy na nag des am na ñoo xam ne dinañ la jëfal jëf joo xam ne des fois bu doon yow la doo ko def te boo leen boo ñëwee di leen yedd kon lool dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem di wax na rek nit moom boo ko bëggee xër baax na waaye nag dee ko kooca kum xel ba ba mu tax doo mën a def loo xam ne ëllëg dañ lay yedd parce que ñun moom encore une suñu liggéey la ñuy def ci côté Boy ñaa ci côté Balla ci côté Modou Lo ci côté Tapha Tine ci côté Ama Baldé ci côté ku mën a doon bu ñu liggéey jotee dañ koy dem defi liggéey ba tamit lañ cay bëgg bu keroogee mooy buñ koy def def ko ci cadre bu nga xam ne dafay professionnel tege ci yoon mënuñoo yey ñëpp nag mais dañuy xool suñu àqulaay taala rek def li ñu war a def mais encore une fois fu ñu dóore journaliste bu yore micro ñun dañ koy condamné di ko ñaawlu parce que dóore moom du sax solution dóor moo warta am nit ki su defee dara bu fekkee daa wàcc ci yoon police sax bu la jàppee da dugal ci oto yóbbu la ci table bu laaj enquête bu enquête la yaa ngi dégg dóor moom rafet rawatina kii moom waaw loolu moom. ñoo ngi lay jaajëf koy balaame merci beaucoup ñoo far. dañuy dem ci Mamadou Diouf ñu xool lan la ñuy am benn réaction ci moom moom grand Mamadou Diouf ah moom tamit muy analyser lu doy waar waaye sama xarit sama xarit yaat maa ngi noonu nuyu naa la ziar grand Mamadou nuyu naa la. naka la maa ngi lay fay. di la ziar. waaye ami Kole. waaye gërëm yàlla bu baax caakamu ci lu ngeen nekk liggéey bi maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. yéen a ngi di ko doxal ku la gis nga takk na ko xam ne jigéen ku mën ngóor ga tubaarkàlla macha allah fu ne yaa ngi fàq lu ne yaa ngi bëgg mu réussir yàlla na la ci yàlla gën a jàppale bu baax a baax am kontaan ak mbégte bis bi réussir na neex na gis nga ko bu Boy Niang dem tey Balla Gaye numéro 2 yaakaar naa ne loolu amatu luñ ci mën a teg wuré wa daa dem na kën waaye waxe mag demagul dañ taali ami kole waxe mag demagul dañ taali waaye tamit gis nga bés bi li nga gis ne bu Balla la indi na ko waaye démb gis nga ci bu bésu Boy Niang bi mhm. tey looy wax li ma wax supporter yi rek xam ne Balla mook booy ñaa benn lañu bu dul woon booy ñaa balla du am xaalis bu dul woon balla booy ñaa du am xaalis kon supporters yi nañu xam ne ñoom ñaar ñu ay trésor lañu ñooy mayante xaalis ci seen biir comprendre nga bu baax a baax xam ne lépp sport la te sport dafa war di boole waaye war warul tàggale loolu nañ ci boole lay xel bu baax a baax a baax après mbër yi suñu bëree ba pare ñoom ñooy nga xamante ne mooy ay xarit kon loolu na ci supporters yi bàyyi xel bu baax a baax xam nga nee naa euh, euh, yuuxu yi ak way yi ak tàccu yi ak succès bi lépp mbër moom supporter bi lu mu ci am félicitation ak di courage kon loolu na ci supporter yi bàyyi xel bu baax a baax jaru nga ciy xeex jaru nga ciy xuloo jaru nga ci gaañu ñu nen la Pikine mu ngi nii géejawaay mu ngi nii yaakaar naa ne mën nga dox dem Pikine mën nga dox dem géejawaay kon yaakaar naa ne nañu dellowaat lépp ci wàllu sport sport du boo du taxale day boole kon nañu delawaat xel yi bu baax a baax a mooy may xaalis booy ñaa Boy Niang mooy may Balla xaalis mais bés boobu ñu war cee gis ñaari ñaari ñoo xam ne dañoo mën a bëri Boy Niang dañ doon wax naan ni mu gën a fooram mooy takk mhm. mbër bu mu mës a takk rek dem nga mhm. waaye Boy Niang Balla Gaye kenn dootul naa table mën a bëreem mhm. booy ñaa ku fàttaliku kii bo a Gaye ku fàttaliku ba sam baag Yékini ku bëreeg Moustapha Gueye bëreeg ay ndaanaan yoo xam ne tey looy conseil Boy Niang pied gauche la ak a droit Balla Gaye numéro 2 pied gauche lay lay teg Balla Gaye mës na bëreeg pied droite gis nga na mu ca jëlee Boy Niang mës na bëreeg pied gauche gis nga na mu ca jëlee muy koo xamante ni day jàpp doog a bëre koo koo xamante ni day bëre ba pare ba jeex te du jàpp muy booy Niang foorewul ci jàpp rarement ngay gis loxoom dugg ci ngemb Balla gay numéro 2 fooram li ci ëpp lépp loxoom bu duggee ci ngemb rek yaakaar naa ay supporteram mën na gestu ne combat ba jeex na moo tax ma ne la kuy jàpp doog a ak koo xamante ni ba bëre jeex te du jàpp ñoom ñaar suñu dajee dina am noo xamante ni mu fa demee parce que ñoom ñaar ñëpp ay technicien la ñu Balla Gaye numéro 2 technicien la Boy Niang technicien la gis nga Balla fi mu jaar ak waa Pikine huit fois la fa dugg am fa six victoire ak deux défaites Boy Niang dugg euh, Guédiawaye sept fois xamante mënuñu ko séddoo ñoo bokk 1 bi ñoo bokk 2 li tax ma ne la ñoo bokk 1 a indil boo nee Balla Gaye numéro 1 Boy Niang numéro 1 daje woon nañu ñoom ñaar boo Niang numéro 1 daan Balla Gaye numéro 1 booba gëstu naa ko mais fekkuma ko bu fekk jiitu na sama juddu ñu ñu dajewaat ci 2 bi Balla Gaye numéro 2 Boy Niang numéro 2 nga indi 6 bi 6 bi mooy 6 victoire yi leen boole 6 victoire la Balla am Pikine 6 victoire la Boy Niang am Guédiawaye moom mooy 6 bi nga xamante moo leen boole boo indee 7 bi Balla Gaye numéro 17 combats 7 bi day ñëwaat foofu ba léegi comprendre nga bu baax a baax noonu la noonu noonu la fa demee loolu mooy chiffres yi nga xamante ni chiffres yooyu boole na leen Balla Gaye numéro 2 Boy Niang mësul bëre premier janvier Balla Gaye numéro 2 mas na bëre def na ay jaloore ci janvier li gën a doy waar mu ngi ñëw 2 janvier 2005 ci làmb moom Balla Gaye numéro 2 mu ngi bëriwaat premier janvier 2022 euh, euh, bu bëree ba suba sa day nekk 2 janvier di fête bi nga xamante ne moom la duggee ci làmb comprendre nga bu baax a baax le 2 janvier bu bu bëree ba ak Boy Niang ba ci ëllëg sa mooy le 2 janvier 2022 war a nekk li nga xamante ne mooy anniversaire am anniversaire am bi mu duggee woon ci làmb bi mu duggee woon ci làmb kon doonatul gone ci làmb moo jiitu Boy Niang li nga xamante ni ci làmb moo tax combat la boo xamante ne combat buy doy waar la mais Boy Niang leen dina ko avantage si tuuti ci combat bi pied droit bi muy tegal Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye numéro sa toujours balaa muy daan pied droit rek day am problème bu bu rëy a rëy du ma nag mënul daan euh, pied droit mais balaa daan pied droit dina ci jëlee ay jafe-jafe yu rëy xool ko digganteem ak Gris Bordeaux xool ko digganteem ak Eumeu Sène xool ko digganteem ak ñeneen ak ñeneen balaa muy daan pied droit. dina ci am jafe-jafe waaye li ci ëpp lépp defet yi mu jël ci pied droit la ko jëlee kon na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax du ma la bàyyi li ngay wax a neex keroog ba ñu demee Sorano Balla gay 2 di fa def li nga xam ne face à face moom ak ki nga xam ne booy Niang Balla Gaye dafa oyofaloon làmb ji waaye dafa mel ni keroog jour boobu la Boy Niang indiwaat Balla ñu bari dañu neen Boy Niang dafa dugal Balla ci làmb ji mais man du ma noonu dama naan Balla Gaye numéro 2 nelaw Boy Niang ko maa la ko wax Balla Gaye numéro 2 da doon nelaw Boy Niang yee ko li tax Boy Niang yee ko Balla Gaye numéro 2 dafa ñëw pare gisuñu ci moom lenn loo xamante ne doole gisuñ gisuñu ci moom lenn loo xamante ne entraînement la Boy Niang ñëw toll ni ko neex entraînement diis wow koŋ ba da ngay gis blouson bi mu sol tubéy bi da ngay gis ni mu seeree ci li nga xamante ne mooy cuisse bi mu wër na ne am na doole mu xool bala gisul ci moom daray entraînement gisul ci moom daray doole sëkkatal ko ne ko maa la ëpp doole fuuf te bu suur baa di nga xam ne lépp dëgg la dinaa la duma dinaa la daan ci noonu la bala demee xam ne booy bi caaxaanul tax daan ko rek la bëgg te bu ko daanee mën na tas géejowaay mën na indi ay coow yu bëree bëri ci géejowaay looloo tax bala dem liggéeyaat ba mel ni mu war toll ni mu war a toll daal di ñëwaat taxaw loolu moo dugalaat li nga xamante ne mooy bala ci combat bi da doon nelaw da doon nelaw mais booy Niang ko yee ca jàkkaaroo ba nga xamante ne jàkkaaroo woon nañu ko suraanoo non ku ko gis xam ne à la pare seconde ya mu waxoon jën na ci dem poids ba mu indi woon suraanoo ak poids bi mu indi dem bokkul wàññi na poids trop boo ko xoolee nag kooku mooy dafa bëri si dafa bëri si te dafa pare pour yóbbu Balla à l'usure ndax loolu Balla dina ko nangu ndax loolu Balla dina nangu Boy Niang yóbbu ko ko loolu mooy loolu loolu mooy wax bi mais li ci loo ci mën di dégg daal jour ji mooy kat ami collègue. mais bi ma gis keroog bi nga xam ne Boy Niang indi na ko démb état boobu la indiwoon ci digganteem ak Tapha Tine. état boobu la indiwoon ci digganteem ak Lac de Guiers te benn réussite. non état bi wuute na tuuti ami côté la gën a diis digganteem ak Lac de Guiers la gën a diis seetloo bal dafa dafa am ñetti étape yoo xamante ne mu ngi ci Boy Niang bi muy bëre ak Lac de Guiers la gën a diis comme bi muy bëre ak Tapha bi muy bi bëre ak Balla Gaye la ba mu war ak Tapha la gën a diis comme bii muy bëri ak Balla Gaye boo ko xoolee dem nga xam ne wàññi na poids bi te dafa ñëw pour bëri si dafa ñëw pour yóbbu combat bi à l'usure ko nangu xam na ko nee ko boo taxawee dëggal sa bopp xam naa ko dëggalaat tey dina ko confirmer tey moom Balla Gaye numéro ko du ñu bëri deux minutes boo taxawee pour dëggal sa bopp ki nga xamante ne dafa pare yóbbu pour yóbbu la à l'usure ak ki nga xamante dafa pare pour bëri ak yow deux minutes yaakaar naa ne Ami Collé bu ngeen dajee dina am noo xamante ni ni mu dem Balla mënul xaar Baye moor Balla mënul xaar nit la koo xamante ni ndox du bàyyi yoonam te alkaati du bàyyi dóor te baykat dugga ji tool comprendre nga bu baax a baax combat bi am na nu muy nu muy nu mu nu muy demee bu naree yàgg Balla dina accélérer combat bi bu sëgee suuf bu sëgee sigi tibaali suuf bu mébee xamal ne day fekki Boy Niang fi nga xamante ne dafa koy nekk daf koy fettal xaw ma nag lan moo fay fekk Boy Niang daf koy remise wala Balla Gaye numéro daf koy yéeg gauche droite loolu mooy wax bi Baye Mor mais du ko ne booy mooy Boy Niang parce que bu bu bu yàggee tuuti day xaw avantage ki nga xamante ne booy Boy Niang ndaxte Boy Niang dafa gën a nekk xale te boo gisee li nga liggéey nga xam ne combat bu yàggee daf koy arrangé loolu moo tax ba Balla du ko may mais Boy ci taxaw xaar la gën a mën waaye a waaye combat bi du combat bu mu war a taxaw xaar xam nga du tax combat teggi tuuma la ci booy ci booy ñaar xam nga lan moo tax muy combat teggi tuuma dafa mil ci génération 2005 2006 entre 2004 muy Tapha Tine Lac de Guiers amu fa len loo xamante ne moo ko neex yëpp daf ci jëlee ay défaite dugaat ci ki nga xamante ne mooy bala même génération boo jëlee fa ñaari defet ba noppi ah bëgg a ñëwaat ah am na sa diggante nu muy demee ak Balla Gaye numéro 2 kooku si supporter duñu la ko pardonné waa lamb duñu la ko pardonné képp koo xamante ni yaa ngi sport la ko pardonné looloo tax ma la amul droit taxaw di xaar ki nga xamante ne mooy Balla diir bu yàgg booba ndax kenn du ko ko pardonné. na jaajëfal kontaan naa ci la yaay lamb waaye déet waay <laughs> kii mooy lamb waaye nañ leen waaxu tuuti boo ñaa tay ma rey la gi moo ngal bëgg a takarnaase boo ñaa tay ma rey nee na tey mu rey Boy Niang daw sil moo ay nit ñu rey Boy fu mu jëm aja dégg ne tey ki nga xam ne mooy Balla Gaye teg nañ ko fa eh! dina ko rey eh dina ko eh! koy rey jëlal ma nee nañ da koy rey eh mbokk internet yi ñuy seetaan moo ngi noonu rey eh déggal lii xoolal ma xale yi dañoo takk bor ci Balla Gaye takk bor ci moo ngi noonu tas tas eh eh ñi ñooy waa Géejawaay Géejawaay non fii mooy géejawaay. fii mooy géejawaay. mooy fii mooy fii mooy lay tabaari wuuna tas tas. eh xam nga li ngeen ëwal. non ñoo ko mën. bàcc Serigne Touba ñoo ko mën. bébé la suñu boo ñaaw. boo ñaaw daa pare. bébé la suñu ñoo ko gën a. boo ñaaw aller retour ba Balla Gaye def aller retour nga bàyyi boo ñaaw. Balla Gaye su def aller retour nga bàyyi boo ñaaw. nga xam dara. kon da ngeen. Dara Ahmed promoteur la te bëggul kenn ku dul Balla Gaye 2 barke Serigne Salim Mbacké ñoom ñaar petit ba grand. Serigne Bamba aller retour nga bàyyi ko. billahi wallahi taala. ñoo gën a pare. fii la ko waxee ba booba du la wax lam reeree moo neex lan moo tax waroon na da doon liñ la wax la wax Wolof Njaay nañ foofu de Serigne Bamba leen def ko AS Pikine ko ñoom Pikine yi door leen 2-1 da leen fekk waat Pikine dimanche inshallah eh, ma lii xoolal drapeau ba vert jaune la ma drapeau ba xoolal ma lii xoolal lii eh lii rek maa lay fay. da ngeen a kontaan tey suñu xol moo sedd. lan la seen xol. doomu dëgg bi moo waaye lañ ci teg. boo ñaa dafay dugg. am lu mu def quoi jàpp booy di leen daan naaj nangu na lool nag. mais bés. dañ doon xaar dina ñëw bés bi ñëw na nag dimanche la. dimanche ñun dañoo pare fépp. Balla Gaye ndam rek amul leneen. am nga démb nee na day tànn bo day tànn ki nga xam ne mooy Balla Gaye bu ko daanee bu ko daanee laaloo bu ko neexee mu ñëw mu doon maire Guédiawaye mën nañ ko ko lool loolu nangul nan ko ko mais du daan du jege sax daane yow gis na booy ñaar doole daa moo ñëwaat booy ñaaw waaw léegi moo gën a fee xale loolu yàggatul booy ñaaw déggoo li ma ne loolu yàggatul ñu fay xaar dimanche lii la lii barke Serigne Bamba. teg ci seen bakkan moom suñu bakkan Balla moo ñu ko wax. moo ne teg leen seen bakkan gënuñoo bëgg bés bi ñun ñoo ko gën a bëgg fuuf Balla. mooy recevoir nee na foofu toolu ma. à domicile la. lu ko jëlee jëlal nañu ko xool. à domicile la. ñu jéem a leen dëkk ragal loolu. te bés dañ koo mat. war na Serigne Bamba lu ko jëlee jëlal nañu ko. dina doon pare. loxo yi ci kaw loxo yi ci kaw loxo yi ci kaw eh, loxo yi ci kaw loxo yi ci a nga tekk di déglu parce que ne def lu neex man dama yaakaar ne ni ngeen daan ñëwee lamb ak biir benn ah, ah. tey rek a ko waral ba am nga kottu kafe. moo ngi noonu. acca. salaamaaleykum. nuyu naa la. waaw fay naa la. maa ngi lay ziar. yaa ngi taxaw croiser sa. ah gis nga di xaar baal rek. xaar baal. waaw. gis ngeen boo ñaata. ah gis seetaan nañ ko dem. seetaan man li ma doon moom amul. booy ñaaw bu ma man xool ma xool ma. booy ñaaw def si place ñëw pour yàlla xam na Balla ko bu doole la première ngay xam ne Balla Balla ko bu doole la première nga xam suñu ko ngeen xool ñu dogale. nga xam ne Balla préparé booy ma ne leen boo xoolee démb ak stade Alassane Djigo boo ñëwee fekk stade bi clôturé Pikine képp ngeen ñëw jàppale seen doom nga ñëw tey stade Amadou Barry même pas nga gis lépp clôturé ba ci suuf Balla Gaye numéro 2 luy ko da ngay xam ni bis bi moo toll noonu da ngay xam ni ñaari mbir yi ñoom ñoo toll noonu moo tax bisu le premier janvier bis bu mag la ndax bis bu la am i la boo xamante ni làmb dootu ko fàtte de lu garaaw laa lay wax amul daf làmb dootu ko fàtte ba pare ampleur bi mu nar a am mooy ki ko tuddee moom moo toll noonu Thione Ballago Seck Baye Waly Ballago Seck nga xamante ni c'est un grand monsieur dans ce pays lu baax lu def na ko ci réew dégg na lu ne ba pare nit ku bari valeur bari woon valeur xam mooy kan du jëw du wax lu ñaaw du def lu ñaaw te lu ko nit mos a wax mu tontu la vite fait parce que xam nga ne ci saa si ngay sa baay doo dégg lu dégg. mais yow tamit dañoo gis rek liggéey ci combat bi wàcc wàññi poids laa ci gis parce que combat bi cons boobu mu ne dafa bëgg ko a cons ak Balla Gaye numéro 2 man dama gis ni looloo tax mu wàññi poids looloo tax mu athlète ci combat bi. waaye waaye est-ce que dina est-ce que est-ce que que dina ko def le jour du combat parce que Balla tamit Balla tamit parce que parce que Balla tamit non Balla mën booy bëri moom mën ngaa bañ a diis tam mën nga bañ a diis parce que dafa combat dina toll foo xamante ni chaque combat ak poids bi mu laaj yenn diis yi arrangé mbër surtout maa gànnus gële nee ci arène diisee da ngay gaaw a sonn foo nga athlète foo nga taxaw physiquement ñi mu doon bëreel ñoom ñoo toll noonu xam nga Lac de Guiers yi coolee fi ne rek mais combat ñu ko booleel ay daanaan lañ te ko booleel moo gën a danger Balla Gaye numéro 2 waaw ah, mais lamb da ngay wax li dara kii ñu ko booleel moo gën a danger ay adversaire yi mu bëreel Tapha Tine bëreewul ak adversaire yooyu adversaire yi Balla Gaye numéro 2 bëreel Lac de Guiers bëreewul ak adversaire yooyu ah Lac de Guiers yëkkati bëri nag yëg ne waaw mais mais adversaire yi Balla bëri laaw dañu garaaw te Balla lamb comme ni mu wax rek lamb doon ko dépassé mais Balla li nga wax qualité yi nekk ci moom moo nekk ci Boy Niang ci xeex ci lii mën naa la ko wax Boy Niang yow boo boo fàttalikoo bésam ba ak Sa Thiès mu bëreeg moom ba ñëru daje da nga jël li ba ko ah bay bëreeg les deux ba pare Boy Niang li tax mu dangereux gis nga man Boy Niang bi ma koy seetaan dëgg maanaam euh, ay adversaire am yi nga xamante dañ leen joxoon favori yëpp ci combat ak Boy Niang Boy Niang da leen a daal moo tax favori amatul ci làmb man amat boog man parce que man li ma gis mooy làmb dootul ay réel ay réalité la nekkul ni sax man bi man gëmatuma mbër muy toog ci télé di wax de mbër mu taxaw mbër mu taxaw ci abonne presse di wax nii waaye gëmatuma loolu parce que ñi ko fi def ñëw noyé dafa bëri man li ma gëm mooy le jour du combat nga ñëw wane li nga bëri man loolu laa gëm ma xam ne champion nga kay nekk am na ñoo xam duñ taxaw ci làmb Boy Niang ak Balla Gaye xeex dañuy bëri parce que ñoom ñaar ku ci nekk dafa am loo téyel sa morom da xiif sa morom man xaw ma lu mu demee noonu Balla Gaye da ko dencal Boy Niang ko denc boo ñaan nee na da boo xoolee bu dee boo déggee ni mu waxee rek nga xam ne dafa énervé booy ñaan su ma ko doon digal dama naan ko sa énervé boobu nga énervé ci open de presse bi ngay ni nga doon waxee noonu bu ma sañoon booy bëri ci le jour du combat da nga koy bàyyi sa kër parce que lamb jooju la expérience bee bari l' expérience face à la jeunesse xanaa xamoo Balla mbër lamb doonu ko dépassé Balla Gaye numéro 2 Ami Collé boo bëggee dégg-dëgg bu ñu waxee lamb rek te yàlla tax lu garaaw laa lay wax nag bindal li ma lay wax nag kenn am yi bëri noonu la daane waaye Balla arbitre sifflé mu mépp ñëwoo dox sa kaw ni ru kum daje jàpp la téye téye say ngemb bu yeboo ay supporter am jóg mën a foog fooram wol bit gàng laa fay wol bit gàng fële laa bëgg a xam lan moo fa xew lu xew fee

aca yàlla na yàlla fay sa xol Aziz nuyu naa la kontaan nañ ci moom amuñu Aziz dina wax ak man nag ki dañ koy bàyyi ak yàlla Aziz di nga wax ak man sëñ Babacar mi mu yaakaar jàpp si wax ak man ki yàlla ko yàlla fay xolam ci barke Sëriñ Touba Mbacke ñun tëdduñu dara ndax Aziz Ndiaye Aziz kurus gi Aziz Ndiaye kii kor la jàpp ko ba Aziz yàlla na yàlla fay sa xol barke Sëriñ Touba daal ba Cheikh baa ngi toog ki mooy Aziz Ndiaye yàlla ko yàlla fay xolam yàlla ko yàlla sigil ci barke alxuraan ok merci après lay wax. ñu ngi lay la Aziz. waaw yooyu sant yàlla alhamdulilah. man moom dafa ma retour la. ah man du ma promoteur damay ñëw di supporter sama mbër rek macha allah. gis Aziz Ndiaye wàcc ci terrain bi jël yére jël mbaxane bi teg ndax Aziz ci loolu. non loolu moom loolu moom jeex na ci Aziz man. soo ma gisee ma ñëw bi géejawaay laa dëkk fii laa juddoo rek dama ñëw ànd ak jeunesse su géejawaay yëpp soutenir leen ànd ak ñoom ndax man aw ma dugg géejawaay fi laa juddoo fi lu ma doon tey géejawaay moom ma ko def loolu moo tax ma ñëw fi rek mais man ñëpp laa njaboote muy pigi ni géejawaay fépp laa may sopp wax dëgg yàlla mais lamb dafa a gis Aziz léegi loolu loolu dama am ay waaw loolu comme am naa ay rakk yu ma koy defal yoo xam ni lu ma laan def mën nañ ko def te ñoo ma ci gën a xereñ ma bàyyi ko ak ñoom rek dem di toog ci tribune bi man chaque combat ci tribune bi laay toog supporter suma mbër convenablement loo rek la du la naan man tey comme ni ma ko waxee sànq man Sénégal yëpp laa bokk te ñëpp ma bokk te ñëpp ma bëgg ku ñëpp nag am nga sañ-sañu am mbër waaye da ngay jéem a yemale ñëpp comme yemale sax mënul nekk ndax Balla Gaye mooy suñu mbër mooy suñu rak moom loo ñu am di ko jàppale di ko pousser à la victoire mais booy ñaa suma nit la keneen ak keneen man làmb ji ñëpp laa jaboote kon nag li ma war rek mooy jël un petit recul jël un petit écart bàyyi leen ñu def seen sport lu ci mën a jàpp rek ma jàpp ci incha allah. waaw tey euh. mooy dañuy mel ne làmb bu yedd na tëdd. waaw dëgg la làmb lu métti la mais ñi ngi ñaanal promoteur yi nga xam ne ñi ngi ci yàlla may leen jàmm may leen sutura. dafa leen tawfeex nag liggéey bu métti la mais nag ñu xam ne suñu sport national la lu ci waay mën a jàpp lu ci waay mën a def rek nga def ko te yàlla tax mais ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen jégal ma rek comme man taalibe Cheikh la te heure bi heure course la may leen ma tuuti rek waaw macha allah jaajëfal bu baax gis ngeen Aziz Ndiaye moo nekkoon noonu kooku doomu alaaji Aale Ndiaye la moom Aziz Ndiaye nee naa leen doomu alaaji Aale Ndiaye la moom Aziz Ndiaye waaye Balla Gaye ngay ñëw Balla Gaye ngay ñëw Balla Gaye ngay ñëw ey eh, eh, eh, mbay ay waay doomu Double Less ba ngay ñëw waa Sakho familier ngay ñëw ah Balla ñëw na xoolal ma lii merci waay xoolal ma lii daa mel ni daa wàcc ñoo ngay tuur ndox ya mbër mu kenn mu salaaj musuma dégg musuma dégg mbër mu ne du ma jinne du ma malaaka du ma maa ngi nii nag di takk ngemb kom gars gaay kay ñoo bëgg lu yomb di ko wër rek waaye fii lu yomb amu fi. xeeru ngor nee na yow la soxla. Eh, ngor man tey du maa xeer du maa ko weñ. booy mooy nul problème. bu orkaata bu mbay tuuti la soxla ndax kenn du la kenn du la laaj. nee na moom moo la laaj. waaw si droit nag ndax mbër mu mag mbër mu ndaw boo gis xolam yëpp ci mbër mu mag la nekk waaye du ma ak moom nag wax dëgg yàlla. waaw na ñëw ba rek ma jox ko Talla Seck comme baytin defaral na ko na ñëw ma jox ko Talla Seck. Talla Seck yi di borom góos mais tey nu ngeen tuddee bés bi. waaw am contentement rek. woote say mbokk ñëw dafa neex wax dëgg yàlla lii dafa rafet stade bi xam nga rempli nañ ko mais sant yàlla rek di ñaanal Balla Gaye yàlla defal ko ndam seddu guy tamit. mais dafa mel ne affaire yi waaw du yomb du yomb ak dina yomb moom loolu la première la incha allah. en tout cas nañu yéene di ñaan gis nga dem boo ñaan bi mu tawee ci kii bi. aller retour indi endurance ñëw indi rapidité. macha allah booy ñaan liggéey na wax dëgg yàlla. non tiit moom du ma ko def moom ka may ànd ak Balla Gaye di tiit loolu waxi dof la. bi combat. combat bu neex. bokk na ci combat yi gën a diis ci Balla Gaye. non non non non non moom mënatu da des ci carrière am. Balla Gaye day <laughs> moom moom moom xam naa. nee na daan Balla Gaye moo ko gënal doon roi des. waaw c'est normal déggoo ma la yow boo léegi Balla Gaye sa xool ak sa sa xalaat yëpp daan ko la mais duñ koy xalaatee noonu la yombee voilà duñ koy xalaatee noonu la yombee de yàlla na yàlla defal jàmm <laughs> defal Balla Gaye ndam ndam lu seen. defal Balla Gaye waaw. ñu dem xooli ji Balla Gaye. Ama Badiane a ngi nii. <laughs> yow kii moo war a dajeeg Serigne Ndiaye deux Coriace. doomu nday Serigne Ndiaye a ngi nii. <laughs> Eh, dégg neex incha allah. lamb ju neex. bu na ma day échauffé wu. Ah, sa diggante moom échauffement la. buñ xam ne échauffement jarul am xam nga Moussa Ndiaye. waaw moo jël drapeau chef de l'État. non loolu du fee. jël open. loolu fee. jël individuel. barke yàlla loolu fee loolu du fee. lan du la am Ndiaye bu ne bu xet mën a bu xet dina xam ne bési góor a koy bay. moo la nee na moo la ëpp problème. loolu du fee man yàgg naa loolu miin naa ko. donc daa am problème mu ndaama. daa am problème mu ndaama waaw. bisoo bëgg dem la ko fa. Ibou Ndiaye obali raamloo dafa am problème bari moo tax waa taxaw ngay di ko mottali quoi nit boo ko yore ndeysaan mu nekk sa sa poulain xam nga am na yi nga xam ne manquant bi nga ko ciy dimbali. coriace ngay wax. non bon coriaceul de maa ngi jégalu nag mais coriace. ñu ñëw ci Balla Gaye Balla Gaye tey. yàlla ko yàlla suñu borom defal ndam sedd guy ci barke maam Serigne Fall allah. ama seen junior gis ngeen démb ki nga xam ne mu indi rapide ko doon fas yéene samp jàpp. non noonu la mel loolu la ko yàlla bindee bañ a daa allah ñëw na comme yow. eh Balla ngi noonu. lool la waaye lii comme guerre eh. xoolal ma Balla jëlal ma Balla lii comme guerre xee eh, def noir blanc rouge def ñetti couleur Balla war nañoo wax ñetti couleur am muy représenté laa ilaa Balla tamit mii waaye ku ne Balla Gaye entraîné yaa ngi ci caaxaan ku ne Balla entraîné wul yaa ngi ci caaxaan xoolal ma ban weex rouge noir Balla cey doomu duubal lees ba kii mooy le vainqueur de Yaxya Joob Yékini kii moo daan Moustapha Gueye kii moo daan Modou Lo ñaari yoon kii moo daan Issa Pouye hey Balla hey zone bu ba xoolal ma Balla Gaye hey Mbaye wàccal nee naa leen kii moo daan le le 20 le 20 avril 2012 ci la daan kii yoo xam ne moo daan ñëpp le 20 avril 2012 ci la dégg daal moom Balla Gaye 2 hey Balla kii mooy le vainqueur de Modou Lo deux moom Balla kii doomu Double Less la lii lañ doomi mbar demal jàngi bëre yàgg yàgg dinañ la masa ñam noonu ànd rakam Sa Thiès ànd ak waa Géejawaay hey Balla ngi nii oh ne nee na mbër baa ngi nii ah. lu dul deñ.

hee kon bu ne dinaa daan ki nga xam ne mooy Boy Niang duñ ko duñ ko dinañ ko nangu waa déggal nee nañ Boy Niang tey mu rey ko waaye yéen kii bu raye Boy ñaa fu waaj waa Pikine jëm bu ko ray jëlal ma baa Gaye ca kaw oto ba nee na moom la moom Balla Gaye Balla ngi noonu kii moo daan Modou ñaari yoon ah kii moo daan la kii moo daan Tapha nee naa leen 2012 Balla Gaye dégg daali ci la daan ki daan ñëpp moom Balla Gaye de eh. dégg ko déggal li mooy nee na tey ñu ko Mbaye ñaa xool ko nee na ay waay wax leen ko mu baal ko wax leen ko baal ko bala kay baalal Boy Niang eh, moo nga ne tekk di lu muy déglu waaye Balla mooy lamb waaw ah, Balla mooy lamb waaye Balla mooy lamb lamb lamb waaye Balla yaay laa ilaa waay doomu Double Less ba waay eh ma ko Sa Thiès waay nee naa la kii 2012 la dégg ki daan ñëpp barke yàlla 2012 la daan ki nga xam moo daan ñëpp kii kenn moom waay kenn Balla Gaye walla yaay la fii mooy fii mooy géeje waay nga daw boo paree na daw ndax bu day daw li ma xam ci Balla Gaye <laughs> buy wàcc di daw ku weddi matu <laughs> buy wàcc di daw xoolal ma poussé jëlal ma poussé waaw poussé la wala lan la la wala lan xorom xorom la yore saafara lépp ee eh, ay ku yaay mënta juraat ku yaay mënta juraat fu mu jëm Xalil ñëwal ñëwal ma fii li bëgg a wax mooy Xalil jëlal ma Balla Gaye Balla Gaye nga ca biir oto ba ndeysaan day daw ku mënta daw bu yeboo nga toog ndox joxe ay ndox ñu koy sànni. waaw waaw mu ngi nga ànd ak Kolo. mu ngi ci Balla. ànd Soko Sim. Sakho famille baa ngi noonu Ami Collé ci kaw. ñi ñooy Balla Sa waa Sakho famille. waaye nee naa la Balla mooy làmb. ba ñu jàppee ba tey bàyyi wuñ. Balla mooy làmb. waa Sakho famille. Balla mooy. mooy làmb. Balla ay waaye kenn du Gaston production. la tonne kiñ. nee la premier janvier. ba waa kër Balla Gaye di yuxu côté be aaye bi waa Pikine di yuxu aaye bi aa ah! jaaraama Gaston Mbengue nee naa leen bi lamb tingotee ba tingot dañoo dem ki nga xam ne mooy Gaston ne ko yow yaa ñu mën a bégal wallaay Gaston yàlla na fanam yàgg yàlla na fi na gudd fan ànd ak wér moom Gaston Xaali Mbengue waaye nee naa leen Balla Gaye mi 2012 la dégg daal yi uh-huh. le 20 le 20 avril 2012 ci la dégg daal ci la daan ki daan ñëpp daa fekk ki daan ñëpp mu daan bu mag bi eh, le meilleur lutteur du cinquantenaire Balla Gaye ko daan déggal ku fàttali ku bësam mbaag Moustapha Gueye daan Modou Lo ñaari yoon eh. kero ba mu naan yaa ngi may seen eh. Balla Balla day daw day daw day daw day daw Balla. yal na jàmm yàgg Aziz Aly Ndiaye sama xarit bi danga maa jékku. dinaa jàpp a ma jaaxal danga maa jékku. ma dugal. mi a coon yi ma. Aziz Ndiaye kontaan nañ ci yéen ah Balla Gaye de ah champion ba ngi dal dama jàll waaw maa ngi noonu safara koo koy safara safara safara da lakke Boy Diop safara gis naa fi meeru meeru meeru fee nu mu tuddati meeru ñoom Zambala bi nu kenn du meer boobu <laughs> meeru Grand waaw kooku mooy monsieur le maire monsieur bu Guédiawaye Ahmed Aïdara waaye dinahum ko lal nee naa leen balaay làmb ku mënul daw tey nga dee idi tey dama daw for force dama xam Balla Gaye ak daw day daw rek dama sonn waay te man tey Balla Gaye li ma jaaxal ci moom day ree rek xaw ma ndax moom bu meree day ree xaw ma ndaanaan waaye Khalil tamit kenn demul mu des Khalil jëlal ma lii xoolal ma Sa Thiès soo ko sim ama si si si Kambay tey Sika Mbaye la. tey Sika Mbaye la. géng géng géng géng nee na da koy bu ko rendi baal ko balla baal ko balla baal ko Lat Joor xool leen ma lii moom la ñu ubbee stade ba ndax lu bees la mu ngi tudd doon ngay ne moom a gënoon doon mbëtte e yaay gaynde kan mooy mbote bi e e kan mooy mbote bi tooñ léegi dama bëgg a wax Boy Niang mooy mbote bi e e ñibbi njambaan la guy gee nga ànd ak njambaan guy gee nga ànd ak njambaan ànd ak Bou ànd ak Bou Fass kenn moomu ko ni. ah ma foog ne Fass xalilee xalil Balla Gaye li muy fecc moomu ko de xalil Balla Gaye mu ngi faas eh eh xoolal ma li xoolal ma li xoolal xoolal li eh, eh eh eh waaw Balla daa am doole li doole la Balla daa am doole guy gi xalaatee guy gi muy sàkkat nee na guy guy gi nee na ko yaa mën yaa ëpp doole loolu la ko guy gi guy gi nee ko yaa mën yaa ëpp doole loolu la ko guy gi wax. guy gee ko ko wax. ga ta fitarwa ta na fecc bu bees waa xoolal guy gi waay guy gi waay kok kok koy ko mbete jaaykatu ginaar mbete jaaykatu ginaar guy gi léegi daa bàyyi xotti yére sa yére bu ko xot tey wax guy gi mu fecc buy fecc di xotti yéreem. borom kagul bi xool ko. jëlal ma Balla Gaye xool ma kaag borom kagul bi solaat na yére borom kagul bi am lu muy def sotti na ko suuf ali ba jàmm na Balla Gaye ak borom kagul bi eh, li muy xëpp Balla Gaye nii lii lan la foofu na ma ko laajal. kii kan la Gawar Singh Baye Gabar Sing xoolal rek bi dama koo ragal laale baaxu la ndeysaan noon ba tey jeex na waaw waaw bu doon lamb jigéen ba na daan da ngay fekk Masata Ndiaye ak Baye Ndiaye ko maa ngi laal lii ngi laa siyaar Thierno nan ko jox micro bu tàmbalee di jox micro bi yaa ngi dégg yaa benn carte journal gars yi li ma la mën wax li may wax de. kañ de am na. maa ngi daal ziar. ah. ma ñëw. gars yi bis la gars yi arrière leen. gars yi arrière leen. même bari na ma noo arrière na ñëpp arrière. na ñëpp arrière. na ñëpp arrière bëgg neexul alaaji Basiru ba bu baax ni yàlla nga eggale bëgg Sa Thiès bëgg Balla Gaye doo bëgg Guédiawaye yàlla nga eggale ci lañ bokk ci lañ bokk Thank you. Allez Amaro. waaw micro bi ma ñëw ma ñëw jox ko micro bi ma bàyyi ko bàyyi ko. micro saa. ñëpp a mobilisé topp ci ginnaaw gi nga xam ne mooy Balla Gaye numéro 2. Balla Gaye numéro 2 si yow da Guédiawaye la doore woon ba tey ñu déglu waa des arènes indi ko fii Guédiawaye. waaw waaw waaw. yow yaa koy téye nga lay nga baax de dix un deux trois gars yi pare ngeen gars yi pare ngeen borom lumière bi oh borom lumière bi bi borom lumière bi sama gars yi man damay taanal micro gaa yëpp micro gaa yëpp laa un deux trois. un deux trois. Omar. def waa Guédiawaye yëpp génn nañu comme ni ko Boy Niang defoon démb pikin Balla say supporter a ngi waa Guédiawaye ngi nii sur si moyen trois wala moyen quatre looy wax waa Sénégal looy wax waa Guédiawaye ginnaaw buñ la nuyu ziar la bu baax a baax a baax auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sant yàlla jur si yonent bi sallallahu ñaar waa sallam sant samay ñaari waajur sant suma sëriñ sëriñ Basiru Baara di ñaan suñu Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te njabootu waa kër Alaaji yàgg loolu te njabootu Cheikh na Cheikh Sadou bu Murid Tijaan Xaadir Laay Ñaseen Baay Laay ñëpp maa leen sant leen gërëm rawatina waa Géejawaay gi nga xamante ne ñoo bàyyi seen yëpp ak supporters yi nga xamante ne aussi ñuy bëggee Balla Gaye numéro mais bala maa sori ah, damay am benn appel bu may lancé rek ginnaaw nag làmb mooy suñu cosaan lamb lañu am mooy suñu fête nationale ñu war a jëm le premier janvier dama bëgg Macky Sall musul seetaan làmb fii ci Sénégal waaw mais dama bëgg mu ñëw seetaan si le premier président de la république damaa bëgg mu ñëw seetaan si ak opposition bi yëpp ñu xam ne Sénégal benn la lii mooy suñu fête national opposition bi Macky Sall ñoo ngi koy woo pour ñu ñëw seetaan bi combat bi loolu ñun jeunesse bi lamb lañ am lamb lañ bëgg lamb lañ fonk mooy suñu cosaan amuñu lenn lu lamb mais nañ ñëw Macky Sall maa ngi koy woo mu ñëw seetaan si lamb ji le premier janvier di nuyu sumay staff ak sumay encadrement bu baax a baax di nuyu Abdou Aziz Alé Ndiaye bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko jox lépp lu mu moom di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal jàmm di gërëm sama père Diaw bu baax a baax ndax gis ngeen coono yi bàyyi ma jigéen bàyyaale nga xam ne suma lépp la maa ngi koy sant di ko gërëm Masata maa ngi lay sant bu baax di la gërëm Babacar Ndiak Omar Gueye Cheikh Mbacke Kabou Ahmed Ndérit Balla Gueye maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di gërëm monsieur le maire mi fi jógee Ahmed Aidara di gërëm Ilimane Lam di suma xarit di suma nit di suma lépp vraiment gis nañ coono yi ñu ci daj root na waa Waalo bu baax maa ngi leen sant suma waa dëkk waa Casamance bàyyi ma fenn waa Fuuta waa Canaba maa ngi leen di bëggee bu baax a baax waa Murtani suma mbokk chrétien yi damaa bëgg combat bi ñu ñëw ci incha allah damaa bëgg ñu ñëw ci xam ne Balla Gaye numéro 2 woo na leen di nuyu nag supporters yi nga xam ne soo bëreeg ñuy bàyyi seen yitte ñëw di seetaan Balla Gaye numéro 2 maa ngi leen di sant di gërëm di leen jox seen wàccuwaay ñu war a la le premier janvier ci ñaan yàlla yàlla may ñu ndam di gërëm mbaru géej waaye yëpp ñu fi teew na bàyyiwuma kenn guy gi jaar na fi la de mu ngi fi Ngaaka Blindé mu ngi fi waa gis nga Jackson mu ngi fi Aline Seydou mu ngi fi Eumeu Sène Junior mu ngi fi Sokosi mu ngi fi kot su Lamine Faye mu ngi fi maa ngi gërëm suma coach aussi tamit gii maa ngi koy sant bu baax di gërëm gis naa liggéey bi kontaan naa di gërëm Xaadim suma entraîneur boxe maa ngi koy gërëm di gërëm waa Kaaba waa Asfa maa ngi ni sant bu baax baax a baax baax di leen gërëm di gërëm géejawaay gi yëpp nag képp ki nga xamante ne rek ngi géejawaay yàlla defar la tey nga am succès di gërëm caat Seck nga xam ne jaar na fi def devoiram kon donc maa ngi koy sant ko gërëm di gërëm mbëru géejawaay bu ma naa juum Adama Ngom mention spéciale Adama Ngom famille Ngomès maa ngi ñoom démb la tey doog a ñëw di gërëm famille Sakho yëpp famille Ndiaye maa ngi koy sant di gërëm di gërëm su ko siim ah di gërëm sa kees mention spéciale di gërëm Bousse nga xam ne sama xulo waa ne sànq ba ñu xulo lañ ba sonn kon nag vraiment Bousse ñëpp xam nañ ne mu mel ci man jàmm rek laa ko ñaanal bugguma sax di ko gërëm di gërëm liiru jàmm suma mag day fanaan ci buntu kër yaa ngi dégg aw ma fayam di gërëm aussi tamit booy yi nga xamante ne ñooy fanaan sama buntu kër suba ngoon guddeeg bëccëg aw ma seen fay waa golf sama dëkkandoo maa ngi leen di baalu di gërëm sama famille di gërëm sama fokk famille yëpp yëpp bàyyi ma kenn bu ma limee dinaa juum ndax man àdduna ñoo may ñaanal àdduna ñoo may sitaan maa ngi gërëm sama mbokk balanta yi sama mbokk saraxule yi sama mbokk bambara yi waa Touba waa Tiwaawan waa Gàmbi waa Guinée Bissau man ñëpp may ñaanal waa Mauritanie incha allah maa ngi premier parti la. Balla man li ma seetlu mooy xam nga barki dem lañ mu jëjëf daje TFM mais biñ la fa fekkee Balla Gaye bu sévère lañ fa fekk Balla gay bu tëj boppam waxul ak kenn xoolul kenn wax naa sax keroog te man bu ma la dékkaat micro nga wax mais keroog da ngaa lank ka ndaar ne doo wax fas sa kanam mais tey damaa gis Balla gay 2 boo xam ne dafa firi happiness di fecc di fo di ree diggante bi lan moo fi soppeeku wala combat bi jegeñ bi la wala lan la Balla yëg fi nekk nii. ambiance moo ko moom kaf moo ko moom daa am fu mu war a am fu mu war a reetaan yàlla na dama ñëw fekk samay supporters fekk samay am di jàmm moo war leen a bëggal te dama leen di bëggal ci moment bii nga ma fekk nag moo war leen bëggee bëggal ci nga ma fekk mais moment bi nga ma fekkoon foofu du yoon wax waaw dernier xare Badar la woon antuwul mais nag ñëw naa fekk samay supporters ak sama am di jàmm maa ngi leen di bëggee di gërëm waa GFC bu baax a baax ay see ay see fi ñëw ñëpp maa ngi leen di sant di gërëm yaa ngi dégg ngaa ko blende moom borom baax la dañuy jokkoo euh, defe naa fi mu nekk nii nag ay fan yu néew a si ci sa combat boo mënee jël ba kanam na ko jël ndax moom bu mënee jël sa bos du ko jël te maanaam da koy jël waaw maa ngi gërëm dem euh, KPE maa ngi leen di gërëm baax di leen sant di gërëm euh, di gërëm Aliou Sall aussi tamit ah maa ngi koy sant baax di ko vraiment di gërëm Malick Gakou di suñu mag suñu kilifa ah maa ngi koy bu baax a baax waa man nag euh, Babacar Lamine lamb kenn ñaanu yàlla jël bakkanu kenn xam naa ne bu dee bakkan yi moom xam naa dinañ bëri ginnaaw papaam wax na bu ñu bëree cinq minutes te daanuma ñu jël bakkanam moom bu ñu jël bakkanam aussi tamit ñaan ñaanalante loo xamante ne moo am solo moo am njëriñ li liggéey la liggéey boo xam ne kenn ku nekk da ciy tedd am lu mu jël yóbbu ko ci këram ay bakkan soxla la kafree te incha allah bu neexee yàlla bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko te sax bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko man nag li ma bëgg man ko bëgg a duma ba duma daan ko nga duma booy ñaa pare daan ko man nga lool dama ko bëgg a duma ba pare daan ko est-ce que man nga loolu dama koo bëgg a duma daan ko man nga loolu dama koo bëgg a duma ba pare daan ko booy ñang ku ñuy duma ba pare doora daan la dama koo bëgg a duma Babacar xanaa yow yaa ngi may déggoo déggoo ma dama koo bëgg a duma daan ko awo maa ngi leen nuyu bu baax a baax Balla ngay bëreeg mbër boo xamante ni comme ni ma ko laajee démb rek noonu laa la koy laaj waale loolu laa la koy laajaatee depuis combat bi taxaw ba léegi dafa am engagement boo xamante daf ko jël ci combat bi ànd ak détermination bu mat sëkk fu ngeen tase moo ngi jéem a heurter sa sa sensibilité lan ngay daloo la sa xelu supporter par rapport ak Boy Niang li nga xamante ne moom lay waxee minimiser say qualité comme ni ma ko waxee parce que buñ gisee buñ buñ defee jàngat ci ay waxam jàngat boobu lañ mën a loolu lañu mën a gis minimiser say qualité di heurter sa sensibilité maanaam mel ni benn Lamine lay taseel lan ngay dalal say xelu supporter. waaw man li may wax rek xam nga àdduna moom cest à gis nga wax sa mbaaxu waaye yàqul dara sa mbaax man dama ko may sens ñaari defet la tegale maa ko may sens. amul lépp loo xamante ne rek mooy wax na ma waxal lu baax ak lu rafet moom dafa ma war a jox ma cër bëri naa fi mbër bu ne mais li jam solo xam nga mooy lan ku ñu may sa sens da ngay réglé tax yem te xam ne dañ laa may sens palmarès boole wuñu victoire boole wuñu kase boole wuñu xam nga la moo ñu boole bëgg a bëggal amateur moo ñu boole mais du daree laam moo ñu boole amul lenn non soxloo moom mu xam moom bu ma respecté mais bu subaa dama loolu maa koy liggéey maa koy jëf. Balla Gaye numéro 2 maa ngi lay nuyu di nuyu géejawaay gépp Balla Gaye numéro 2 démb dañoo seeti Boy Niang maa ngi nuyu le premier magistrat de la ville de Guédiawaye tey gis nañ ko ci bés bi ak Guédiawaay gépp waaye Balla Gaye démb danoo seeti Boy Niang numéro 2 ñu gis ko mu xaw wàññi poids ci combat bi biñ ko déggee suñu micro laaj ko nee na dafa pare pour jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2 dafa bëgg koos combat bi ak yow dafa bëgg a jàkkaarloog yow ci xeex bi dafa bëgg a jàkkaarloog yow ci bëre bi est-ce que numéro 2 pare na pour koos combat bi. ak ki nga xamante ni mooy booy Niang ndax premier kàddoom bi mu njëkk a wax mooy bay may Balla Gaye une minute bu Balla Gaye ñëwul mu dem mu dem ba ci yàgg changé changé li nga xamante ni mooy communication bi est-ce que pare nga pour cons combat bi. waaw mais xam nga làmb moom làmb di jëpp am solo mooy. ku jël avance di nga bëre di nga xeex loolu jarul laaj bëre ak xeex lañ wax. waxuñu bëre simple de bëre ak xeex dana xeex wala dana bëre moom na ngeen ko laaj question bu am solo mooy est-ce que Boy Niang mos ngeen koo gis mu jàkkaarloo mbër am njaay jox jóob c'est plus mooy loolu am njaay jox jóob mosoo leen koo gis ah kon am na yoo xam ne nit bu koy wax da day nax boppam ay lu ma ko guuxal moom xanaa ñëpp ko guuxal moom lu ñu wax mën ne dañ ma guuxal moom moo xam moo guuxal àdduna bi yëpp yow combat boo am ñëw dañ laa guuxal te yow bu abi siflee doo def li xam nga laa koy xamal na préparé lu bees loolu moom solo te bu mu daw génn saako yi te bu mu daw dem syndicat jërëjëf ñu degloo gaay jërëjëf Balla maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar démb dañoo dem Boy Niang ñu jëli ji ko nee na li mu sekk ak yow dina ko def dina ko def mooy nee na dafa bëgg combat bu diire ngeen di ànd di nàcc di faju ji di dem di ñëw nee na loolu mënoo cee mucc te dina ko def ak yow jëfante yow ngeen ànd dem ardo ñëw parce que mosoo ko ñam. xam nga dem solo mooy li ma rek laa lay wax ku mu sa taxaw am njaay joxul jóob man boo waxee say wax du duma la comprendre. man question yi laa koy waxaat pour mu ñëwaat ko papaam dafa taxaw ne cinq minutes bu bëri woon daanu mu joxe bakkanam mu ñëwaat def première signature ne papaam dafa baax moom une minute fu ma nekk man mu fekk ma fa duma ma daan ma moo ko wax wax waxaat amul gor ca wax ja sportif au niveau nga sport am doole am fit loo wax danga koy def man na ci leen koy waxee une minute yooyu ma may dinaa ko xaar bu ñëwoon fu mu nekk ma fekk fa duma ko dal ko ñibbi. Balla Gaye numéro 2 ñu ngi lay félicité di gis Guédiawaye ñu ne àndee topp sa ginnaaw ñu gis mbër yi ne dañoo mën a xeex yëpp buñ dajeeg yow da ngaa dugg seen gàddu duma leen daan leen te dañoo gis baa bi waxoo ci wax xeex lu wax da nga naan naan da nga adversaire yi benn toll walla da ngaa jàpp ni ah, bëri bi boo la mën a xam nga nag yéeg léeg dama yaakaar na ngeen di bëgg a fàtte Balla Gaye numéro 2 lu mu def ci làmb damaa bëgg ngeen di bàyyi xel loolu c'est pas n'importe qui ci làmb loolu yàlla def na ko man seetaan ngeen sama ñaata combat man musuma xam palmarès su Boy Niang yàlla xam na loolu mais jour bi nga xamante ne dama seetaan palmarès am ak sama palmarès. tu m'as déçu ah vraiment je suis désolé mais tu m'as déçu xëy na nag bëgg ko may sens rek ak bëgg ko may xaalis moom boole moom ak lu amateur yi bëgg duñu benn ci dara duñu benn ci dara te bu at bi sifflé di xam ne duñu benn ci dara non c'est moi le plus fort plus fort de tous les leaders loolu yàlla def na ko. maanaam yaa dàq bëri ci mbéy su ma la déggee deux c'est moi Balla Gaye 2 je suis plus fort que tous les leaders àndaange mi ngi ñëw mi ngi ñëw mi ngi ñëw. ma ñëw ma ñëw. Balla Gaye 2 maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ñaanal sa adversaire jàmm Balla Gaye 2 ñu bari dañ doon wax naan Balla Gaye 2 amul état de forme tey ñi gis Balla Gaye 2 ak ni mu mel nii. tey lan nga ñuy wax le premier janvier loo mën a jëflanteeg sa adversaire sa état de forme bi nga indi tubaarkàlla macha allah. waaw liggéey rek xam nga liggéey boobu yëpp mooy boo respecté say encadrement respecté say supporters respecté say am di jàmm waaw s'il te plaît ñu lay ñaanal respecté ñi ngay àndal moo tax man toog di nelaw waruma lépp lu may def fulla ak fayda laa koy defee ak jom ak ngor ndax damay kilifa yi topp sama ginnaaw damay ñaanal di sonn ci man man liggéey ba dee te li ma leen waxoon démb tey laay waxaat mbër dootuma yëpp ci Sénégal incha allah bu neexee yàlla. jërëjëf. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu bu baax Balla. maa ngi lay nuyu. waa mais du dégg quoi. Balla maa ngi lay nuyu. waa di la wax ne bii mooy sa. neuvième fois ngay dugg géejawaay Balla. Balla maa ngi lay nuyu. Mamadou Diouf yi TVA ah, maa ngi lay euh, euh, laaj benn question bi mooy sa neuvième fois ngay dugg Pikine dugg nga fa huit fois am fa six victoires ak euh, deux défaites bi mooy sa neuvième fois nga fay dugg te boo génnee fa nga jëmaat Balla lan nga pare pour indil ko li nga réagir. moo tax sax semaine maa ngi koy ñaanal jàmm moom suma adversaire ak salaam. da ko ñaanal moom ak fameem di ñaanal suñu père dafa méngoo ak suma yaay yaayam dafa méngoo ak suma yaay yaayam mosoo ko gis mu wax lu ñaaw yaayam mosoo ko wax mu lu bon <clears throat> dama ko bëgg j'aime beaucoup te incha allah <clears throat> booy ñaam maa ngi koy waxal ne moom bu ko neexee ku daan na seet yaayam te man dinaa seet yaayam incha allah waaw ku daan na seet yaayam ku daan na seet yaayam ndax man damaa bëgg yaayam j'aime beaucoup maa ngi sant suma yaay di ko gërëm ndax li may gis suma yaay rek laay gis yaayam ko maa ngi ko ñaanu jàmm léegi léegi léegi waa waa Lamine Lamine c'est que man xam andi na ma dimbali mu tontu ma ci fooru ba fooru fooru Boy lan la lan mooy fooru Boy Niang Balla maa ngi sant ñëpp di gërëm wax nag waaye li may wax lépp dëgg la mais booy Niang champion la ndaanan la mën na bëre mën na xeex te du ragal te une minute maa ngi xaar ñaa une minute maa ngi lay xaar Balla mooy ma ma laaj la leen xam na ma la daan gis ak ay kagul mais ñoom démb andi nañu kagul xanaa lan la ci kagul yi waaw maa ngi ñaan ñëpp jàmm ñaan Sénégal jàmm yéen journaliste yëpp maa ngi tuub tey jégalu da leen ñaanal jàmm da leen ñaanal salaam lépp leen fi rek loo xam ne méngoowul ak seen liggéey ngeen baal ñu àq parce que liggéey bi dale bi ñi toog fi ñëpp kaw tribune maa ngi leen sant di leen gërëm di gërëm ma jigéen xam nga ma jigéen sama seex la te dama bëgg loolu maa ngi gërëm Canaba guy gi guy gi Canaba Boucher wol waa Canaba Lac de Guiers wol waa Casamance Père Diaw Waalo Awar Gueye wol waa Seedo maa ngi woo <laughs>